Just to tell you guys now I am okay. Um, migraine be more kicking so man need poor. wàññi wax be tuuti te nit ñi diga diga, Gambians Gambians in ñu ngee call far and near You get call everywhere Europe Gambia America dëgga diga ma appreciate kotorop. Yen ñi ma ham dëgga ñëw suma kër xam ngeen nu ma dëkkee te aw ma résine pour ma nëbbu kenn ndax boo nëbboon ni ñi mënuloo nëbbu yàlla so yàlla gis na yàlla xam na yàlla gis na yàlla xam na waaye maa ngi wax thank you ah, ma ne xaaral ma dugg a this quick life to tell you guys na I am okay to stop you from being worried my friends and family are worried sick they are calling me dañ am pour yónni nit mu ñëw suma kër pour gis ne I am okay I am okay it's just a minor migraine um I am a little down but I'll get over it so is life Aduna moom boo fi nekkee tey mu neex ëllëg mu naxari surtout loo xamante ni warta dal bula dale wala lu luñ la warta waxal buñ la ko waxalee dina métti sa xool te bu sa xool méttee sa yaram simeeku loolu rek ma dal su ma yaram a simeeku su ma xol métti man am lu ma naxari torop waaye nag foog ma delluwaat diis ko yàlla ndax bu taraanga yokkoo noon yokku te noon capabilité am dafa amul boundaries waaye di leen wax rek ne yàlla xam na ne awma seen fay man yàgg naa na a wax ne man ñi follow ken gënu so maa ngi di wax thank you it's going to be a quick one Muna Touré my darling um maa ngi okay it's it's a minor migraine so I have to just sign out of WhatsApp and um, Messenger suma Messenger bi dama am pour delete ko so that Fatou my darling You fooy them ni? fooy them ah. Ibra loo yee. um, guys, I don't know what to say. Suma maki, suma brothers here. suma suma suma suma sisters suma followers suma soppe ñi ma bëgg rek te yalla tax ndax dew kër kenn may la dara mayuma leen dara xamu ma from Adam and Eve ngeen japp rek te yalla tax ndax nit ki bu dee la wara dara yi jikkoom bo nekkee mom ñetti fan nga xam moy kan te dégg dégga yalla rek a leen mëna fay so ma ngi leen di wax jërëjëf di wax né fim nekk da eh, bugal tay tey ngeen may ma rek ma calm down pour suma boppa bi because if I didn't I'll end up getting sick Muna a nar naar domi doomi Um, so many people have called so many people have text so many people leave messages appreciate na every single one of yous nee naa man suma followers ak ñima ma bëgg a duma for all the tea in China ah waaye pour dalal seen hell. amna kuma ko léegi ndaysan suma anti bu baax muy joy mune dafa jaxle démb be tay munta nelaw di la wax ne anti tidal nga nelaw maa ni, nii migraine a tax ma fay suma boppa bi du dara yalla xamna ko du dara ñun ñep Gambians lay I really love you my darling I'll have to go back to work and the work is Dega bi ma wax su de sayuma waxe ma ma am non dina bari non bu dee saa yoo foogee ne dinaa noppi wala dinaa calm that's not going to happen so all I can say is I am okay alive and kicking Hadi Sarr Thiam nuyu naa la ay dama di jaañ naar I am okay everything is okay dama just ñëw pour wax leen yéen jërë Gambia ba Gambia daj man kenn gënuma ay followers kenn gënuma ay ay ay sisters ak brothers suma brothers yi billaay wallaay xam ngeen lu ma leen di wax yal na yàlla fay xool ku nekkal li nga éene sa moroom rek yal na la ko yàlla fay so maa ngi wax jërëjëf di leen wax ne léegi laa eewu rek ma sangu ne xaaral ma dugga parce que people are calling me far and near I have to reply to to everybody's text messages and, and, and voices. I can't do that, but I can come on live and say thank you. I love you too, Don Bayo Hamgalolu. Why manglawane? ne one won ngeen mané du deret moy make nit kimboka. So one ngeen ma diga ne mboka alali yalla Te li bes you mel ni du kadina am faw muy am waaye ñu dellu si waat ci yàlla rek ndax ku wéet ku ne xam sa boppa xam yaay kan I am not trying to be anything I am not I am poor I am ugly and fugly and God knows I am nothing without yaa rabbi ak yéen ñii di ma toppa waaye nag suufeel naa suma boppa ba mel ni ma xanaa man ku jóg ma jóg ku jooy ma jooya moom ku ree ma reeya moom waaye wan ngeen ne ma man mi dee jóg di jooya yéen di reeya yéen bés bi ma jooya yéen ñëpp jooy ngeen apprécié naa dégga dégga apprécié naa in life nag léegi-léegi nga am ñu la ngemba ba pare te noonu la war a mel sax ki laa ngemba moo laa dugal ba ci biir géew bi bàyyi la fa jox eh, la gannaaw bu boobaa yàlla rek ngay defee ak sa doole maa ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla musal ci nit ku bon yal nañu yàlla musal ci ku xam dara nga tëdd ba guddi mu jóg wóor la yal nañu yàlla sama sàmma suñ njaboot yal nañu yàlla musal si ku jóg di yàqale parce que su dee dañoo xeex pour Gambia dañoo xeex pour pour freedom ak just free justice in Gambia dama foog ne su fukka di gas fukka di suul fay du mun a am nañ leen delloo si xel yi te ku nekk seet sa boppa ni nga mel nga jàppee ko sa moroom man dey matuma awma yit te ma pour wane anything wala am anything lu ma kenn amut nit ñi ñooy jël seen alal di ma ko may nit ñaay xam di ma wax kon without yàlla moo ma baaxalee ay nit ñu baax ma am suma ay mag yoo xamante nii as I always say sister Mama Sali Jaata ñoo bokk ndey Ajuwa Jaata kooku suma magi boppa la Fatou Mbeng Mboor xam ngeen ne kooku dereta ko ñuluk sister Aysatu Fay Ndelsin lingeer la juróom-ñaari yoon ak ki nga xamante ni moom xariti guru lañ ñaari daggit lañ bu dagg moroom ma lay seet muy jàllo jéeri male yaama suma doomi boobu xajatu jàllo suma brothers yi xam nga am naa fi problème ak alpha alpha photos waaye xam naa ne nit ku déggu la xam naa ne ku am yëg-yëg si nit la xam naa ne ku ñeme dëgga la xam naa ne nit ku baax la brother Melvin nag kooku he is my lawyer my personal my personal lawyer He taught me law on social media. Now I am graduated from the University of Melvin Roberts. kaa bu indi ma kaa côté toog Xadijatu Kinte xam ngeen ne kooku li ma neex ci moom mooy bu dëgg a jotee mu wax ko dem toog du jow du wax waxi jàmbur du gaaruwaale duggul ci dara lenn rek de problème bi ñu am mooy suñ noppee dina fata dañ foog ñu muñal ko loolu yéen ñi ci des am na ñoo xam ne bëgguñ sax ma oo seen demba kol ngeen ma ngeen joy ah di len wax ne fo len ma fo len fuma me egg ci yeen rek egg ngeen fu raw ci man yel na def jama suma domi bàyyi ti, suma xariti suma soppe yi my brothers and sisters diga diga bis ki tay ma len wax ne gannaaw yalla ak yonent bi ak suma jëkkër ji ma yalla séeda nga xamne ne ko dara gay balami ci jimmoy dénk naa leen suma boppa de te ni ma leen dénkee suma boppa mooy soo leen ma gisee bés ni ki tey soo leen ma gisee ma jublu yoon boo xamante nii du suma yoon bés boo leen ma gisee ma toog Facebook di fen wala may fake koo leen ma ba ma ñëw ngeen ne ma Amina bàyyil fen wala nga génn Facebook live keroog ma tëj Facebook bi duma duggati dugati munuma ñëw Facebook pour fen munuma ñëw pour tuutil nit te ba àddunay tukki doo leen ma gis ma enn suma moroom gàmbien ne dama ko yóbbu police pour toroxal ko dama ko yóbbu code pour teg ko place éenewu ma ko kente ku ma ko éene rek ma jël yàlla lu metti métti nag lu métti métti lu may dugalu ne yàlla laa ciy seet ku ma xamul nag nga jooj ma yàlla dina aate waaye óor na ma óoral yàlla ne éenewu ma kenn lu boñ ku ma tooñ baalal naa la te maa ngi jéggalu képp ku ma tooñ àdduna dafa tëra ndax koo ci géej a gis tey ëllëg ñu ne la dee na lana ko fi jar diggante xàcceek dóor lu nekk xej na ci te ñun ñiy def live billahi war nañoo bàyyi wante xel <laughs> àdduna moo tëra xam ngeen ne démb dama toog fii am ku ma kool Facebook kuñ naan Masia Mendy Masia seeti Omar Betty Kan Prera la yéen ñi dëkkee London Corners Serekunda xam ngeen Omar Betty Prera tem amoon arène bi Dipakunda soo jàllee Safidine opposite Safidine soo passé Safi koñu ñoom eh, John Ndaw Tica foofu la amoon ah, arène Masia kool ma Amina Diagne maa dama bëggoon a def live parce que kool naa la ba tàyyi uyuwuloo te bi maa def live barki démb mu ngi bugg a join mu ne ma kool naa la ba tàyyi uyuwuloo dama la dama bëggoon a def live ma taak la ko pour nga ma am sa attention ma ne ko mbaa jaama mu ne ma xanaa xamuloo ne Fat Diagne sa doom la ma ne ko suma doom man mu ne ma waaw ma ne ko naka la nekkee suma doom mu ne ñun ñoo njaañeen depuis Banjul ba Serekunda ba London Kona Omar bi mu ñëwee London Kona suma maam suma papa papaam la def papa ma ne ko dégg la ma xanaa xamuloo am king wax ne moy papi Fat Diagne ma dede? ko déedéet mu ma Fat Diagne tuddut Fat Diagne Old Boy Dieng mune ma tudut Fat Diagne ko what do you mean mu ma tomaye mo tudda Fat Diagne Fat Diagne papaam alaaji la tudda alaaji Omar Betikan Preda Omar Betikan Preda moy mami Fat Diagne Fat Diagne Preda la santa mu wax ma loolu ma ne ko cey àdduna moo tax ku xamul dara danga war a ragal moo tax léegi ma sañ maa mun I can say anything I want and nothing come out of it dañ ko war a bàyyi xel sañ-sañ lu beeg dof-dof lu beeg maa mun bi dañ ko war a wàññi ki ngeen di wax moy Papi Fat Diagne dëgg moy Papi Fat Diagne waaye tur bim joxe lolou stage name am la turam dega. Alaaji betikan Kan Prera la ñun biño nekk xalé we look on to these people as our brothers ñom ñoy suñ mak man suma ya ya yeb da musuma in the Gambia fi time school la gor gor yi mom buguma sumasista. de laal suma sister so suma sister si I fight you waaye musuñ ma até xulo musuñ ma até xeex Facebook nak dinañ la dëkkal fu nekk ñi la xam dëkkal la fo xamul ñi la xamul sosal la ñi la bëgg xam indi lu nekk tek ci sa der huwa may pour ma wax ne man kèn duma tilimal yonenté yi nga xamné ne yalla len tan ci bir nit ñi segam ñoñoy am bañel segam comme la lañuy tek ay cadeau ci sen der kon yéen ñi nga xam ne yéen a ma bugga billahi soo leen delloosee seen xel tuuti rek ngeen xam ne oto bi ci kanam rek la ñoo corné su ma nekkoon Facebook di def yëfi ñàkk fula di def yëfi ñàkk fayda doo leen ma àtte ci dara soo leen gisee nag ku jóg ne dina mag faagaagal dama nekk ci yoon boo xam ne gënalut ñu bari man man faruma fenn fara feñe laa fi digga nekk rek laa far utuma gang utuma kabudu ki am dëgg laa xam ak ki nga xam ne dañ ko bugg a faagaagal ma jóg baag ko rek is my mission suma mission I have no party my party's name is Gambia and its people I am the mother of all youths it doesn't matter if they know me or not it doesn't matter if they're talking to me or not I am my brother's keepers and my sister's keepers bul degati waxi nit mukk ba joojee duma ma dégg waxi nit mukk ba joojooy la ko parce que ñi dugg suma kër ñëw suñ kër xam nañ may kan man bañ naa ko suma kër dama dee mel ni dof tànki neen jaabante dem ñëw xar yeeg mbaam yeeg nag yeeg man man baay faal ndax yaay faal laa awma lu ma proof to nobody awma kenn ku ma añaanee moo tax dew ma kër kenn nobody pays my bill gannaaw yàlla moo maa jox access sunu maa fayee suma bill si ma am jëkkër joo xamante ni dama ne beneen jamono bu ma deeyee bëgg naa yàlla boole maa gay bàlla mi ci ji mooy dal na am na yërmande comme ni ko nit ñi di waxee amul dara waaye am na yàlla nee naa leen juróom-ñaari jikko yi ci yonente laa gis ci suma jëkkër ji suma nit ñi buggee soo leen ma buggee bàyyi leen ku ma waxal lu ñaaw ngeen mer soo leen meree ma mer te su ma meree duma dellu gannaaw ma ngi leen di ñaan rek wax ji dina ñaaw jëf ji dina ñaaw sos gi dina bari góom leen rek ne ku boot bukki xaj bow ko boo leen gomee loolu rek duma am problem. Why sa yo len meree be won mané da ngén mer ngén commencé di binda di ma texte di ma forward su boba ma mer ma génna té suma ma situation bi duñ ko mëna kam sa yo len gissaté nit di ma saga sa yo len gissaté nit di ma wax len lu len or ñima xam suma kër dunda suma dunda xamné li du suma jiko. wax len rek né alhamdullilah mu ngé agga si fim bëgg jëm parce que boo dundee ba dee te amuloo ay noon sosaluñ la kon sa mission doo fa aaga bugga naa saa yu ma xëyee suba noon yi bari saa yu ma xëyee suba bugga naa noon yi bari ndax sumay bàkkaar wàññeeku waaye lenn de bokk na sumay bàkkaar duma fen duma yàq nit duma sosal kuy dunda ci kaw suuf tooñkat laa nag dinaa ñëw social media ma tooñ kaf ree ma dellu képp kuma ene lu bon jàmm laa la éene képp ku ma bugg a ci alquran ne dénk na suma bopa yalla ak yonente bi ak yen nit ñi ngeen xamne da ngeen ma tek fuma ma kenn tegoot ñi nga xamne legge legge ma tedd ba guddii ewu tok ci suma lal di laacc lan la démb dama wax suma jiker. manako lan la def ba gambian si melni call be three o'clock I get tired ma I have to switch my internet off otherwise dama am migraine Gambia thank you both home and away. My brothers and sisters, aw ma lu ma leen fay waaye yàlla am na fay yàlla na ma leen yàlla fayal lu jot rek yàlla def billahi lu jot yàlla def te looy éenee nit ki yàlla na doon jàmm di nga éenee nit ki mu dugga ci fitna nga dugga yow ci fitna bu ëpp bi ko dugal we witness this case over and over again man damaa jaay xeesal these are my hands no filter lii suma tànka yi la filter ma dara waaye leena rek laa wax na wax ji rafet ta tegu ci yoon doon dëgg loo bañ bañ bañ tubaab nangul ko xeesaayam waaye nag ku la yéeneeg mbooy du la soññik waar man Amina jaañ gay mi taalibe Xaliilu Laay bii képp kuy nokki rekk jàmm laa la yéene waaye Gambie maa leen yéene jàmm bëgg leen piir nag